da nga ko kontar ndax da da lay boole ci lim ñuy xeex te xeexoo kii xeex bu yoru yet yoral yet ni moom bu yoroo jës yoroo jës yi moom waaye bu ñu sa loxo ko dañuy jàppe ne soldaar yi nga bokk téeroo nga naaj kon jiyaat seen tubaab yi ku a bokk fa nga xam teñ bàyyi xel ci ne jiyaat bi yom waaye jeex ndax ak ignorance ak réew du fi ak mbon du fi jóge kon jiyaat day continuer kon ñëpp war a xam rawatina murid yi murid yëpp war a xam waaye rawatina doomu Serigne Cheikh ne diinu ci seen loxo la jëm ñi doomi serigne ñoo war gëna xam tax diine ji dina xam la du ngeen fekk ben diine bala ba ngeen fekk ben metti ñu ne diw ko chef la ci tam réeral loolee doom ma sama dem ci dëkk ben dëkk police laaj laaj manama ne ma lan mooy sa sa profession lan mo ci liggéey ma ko chef religieux la mu ne ma lan nga fa diine ba tax nga nekk chef ci diine ji loolu méttoon na lol waaye dina bax ni li ma wax dëgg la maa ko doon di ko laaj sama bopp lan la defal diine ba tax ma nek chef ci diine ji maa ko doon di ko laaj sama bopp kon diine ji ci bokk nek chef fa nga xam du ngeen fekk benn métier ñu ne kii chef bi taxul taxul lool du ngeen di mukk ci garage bi mécanicien ñu ne kii muy chef garage bi te mu ta wekk bolo mu ta mu ta bolo du ngeen fekk mukk ab monsieur atelier muy ñaw ñu ne kii mooy chef atelier bi mun ta ñaw mootu mun ta ñaw musaa doom diine islam kenn ngay fekk ñu ne kii mooy kilifa diine gi te xam nañu xam ci diine daal loolu lu lu sikka la si ñun ba ca topp genn kilifa diine genn kilifa àdduna dafa ma sa dénk genn kilifa diine fii ci réew mi bu baax turam ne ko na ngeen jàngal seen seen seen xale yi jamono jii jamono jàng la bu nga leen jàngaluwut ji ngeen yilif tey seen njaboot ëllëg ñoo ñooy seen njaboot te booba seen njaboot dañu sonn nañ jàng am na benn délégation bu suñu Sina Omar benn xale bi ndaw jóg jël pare bu bëgg wax ci turu mbooloo mi Omar na ko yow mi gone say ak dina néew dangaa war noppi ñii mag wax xale ba ne Sina Omar damaa jàppoon ne diine xam la dëgg la ñoom ñoom ñoom ñoom ëpp at waaye ma la ëpp xam ma man ma xam maa war a wax ñoom ñu xam ñu noppi sinon ba daal ree daal leen góor si am na dëgg Omar juum na daal kon na say wax kon dina ci dina xam la wax ci dama koy moom ma sama bopp ndax adduna dafa daqaree waxe ba waxee mën nañu diw ko tax di wax wala diw na maa ko tax di wax wax ci man maa moom damaa wax ne <clears throat> damaa wax ne damaa juum juum tal méttee méttee méttee juum tal loolu indi ma jafe-jafe métti sama dund loola mooy Sëñ Tuubaa daf ma dénkoon ne ma na nga xam bala ngaa jëf loolu na nga xam bala ngaa jëf ma ne ko jaru ko ma ne waxtu bu jëf jot ba jëf tul ma ja xam loolu loolu du ñum ci man ma rëcc ko lool fekk kat Sëñ Tuubaa ne mën na ma boo ko deful ëllëg da nga am gàcce ma dellu njuum njuum te lu métti mooy yow tollee am bi ma amee temps war a jàng nangu ma woon a jàng dama ne woon rek naa bañ a jàng saa bu bi doon mag sama san si biir Mbàkke ma sol ko def ko manto at ci nit ñi diine dëkk diine nanguwul loolu muy jóm tala métti waaye nag la ma suñu toon wala lépp gis naa ko am ne kersa dama dikkal ñu ci ñàkk dox ndigalam loolu mooy sama nawle yi sama nawle yi bu duñ ma woo duñ ma yóbbaale te bu ñuy def duñ ma ko yëgal te ñoo yey ndax fañ jëm ak la ñuy daje muy diine xaw ma ca dara boo demee xooy xooy looga laa fi vidéo moo tax duñ ma yóbbaale may dem loolu di gàcce ci man ma dellu ma gàcce gu méttee métti métti ci ñett di ñett joxe ndigalu sëñ bi la ma dénkoon ne ma boo ko def da nga am gàcce gàcce gàcce gi dikkal ma loolu dëkk bi ma nekk bi fi sama am nekkee lañ ko doon bi fi sama sama ñu koy xoole ñaari bët man ñu man ñu ma benn bët mu naqari ma lool waaye xam naa li tax loolu mooy dëkk bi dama leen amul dama leen amul njariñ amul mu leen njariñ bu dem côté développement bokkuma ci du ma samp du ma simpi du ma yëkk du ma toxal dëkk bi fu mu àgg ñeneen ñeneen ñoo ko fàggale waaye na du man diine ji participe moo ci ndax jànguma jàngale wu ma te kenn réer a masal laaj ma ko lii tax dëkk bi dama ba loolu di ci man gi moo di ne fu lamb dina sàjje ma daw fu lamb dina sàjje ma daw ndax da damay bañ ku ma dëkk ndax bu ñu ma dëkkee du man bu ma lekk bi dama mu te ku ma róofal nga fi suuf tax damaa réer diine kon yéen ñoo xam ne yéen laa bëgg ko aw sant muy mbàkkee ñu toll ci xam nañ góoru jëm a xam ndax yëfee ngi ñëw te jege na seen loxo la jëm nit na bu ñëwee ci yow da nga ko ci ma fàggu fàggu mooy ngi jëma xam-xam mag ñi li ñu wax ci seen loxo la jëm kon fàggu ko téye ko te dañ bàyyi xel ci ne nit ki bu fekkee dañ ko yaay la fi diine ji yaay la fi diine ji diine te xamul diine ñam ñam ñam yëlëf xam diine ji day leen daragal day leen daragal doo digle doo tare doo digle doo tare ndax da ngay bañ a digle loo xam ne diine diglewu ko bala nga tare loo xam ko mu gàcce ceew kon yaa jiite waaye yow topp ginaaw ñi nga jiite yaa leen jiite ci kaw waaye ci kanam seen ginnaaw nga topp loolu nag gàccal cib sëriñ kon ñu sant seen mbàkk ni man ginnaaw bañ nañ gàcc gi man la dal leen nañ góorgóorlu jéem a xam te xam ne yëf yi ak seen seen loxo noppi nañ jéem ko jéem a saytu dañ koy jéem a saytu yor ko ba ni ko mag yi tàggate woon mu loolu continuer mooy jéem ma xam maa ngi jégalu ñëpp maa ngi balu ñëpp pàq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, jërëjëf mbokk yi loolu mooy kaddu yi nga xamante ni Serigne Abdou Samad moom Cheikh Mamadou Hawa Balla eh, yëkkati na ko di kaddu yoo xamante ni bii am solo gi ëpp na. léegi nag xam ngeen ni ci borom daaru Muxti ba léegi saa bu ñuy jullee eh, korité ba noppi danañu jàng ab kaamil yool bi ñuy yéene ko eh, ña daw kon dañuy fas yéene rek jàng kaamil boobu nga xamante ni bii. moog dëkk bi ñoo maase waxoon naa leen ci la ni leen euh, borom daarul moxti moo daan jiite julli tabaski ak korité bi mu fi bàyyi ko